waa macha allah fa tubaarikàlla mooy ni ma leen ko waxee fa tubaarikàlla kenn demul ba ko waajaa ngi kookoy kan borom Six Avenue borom sañse yi ki nga xam ne artistes yi moo leen di sañseel yemul ci ay artistes u Medina kese rappeurs yi bàyyiwul kenn journalistes yi macha allah fa tubaarikàlla kookoy borom Six Avenue xale bi yënga réew mi bu sàjjee mu neex la ilaha illallah ah xoolal ma xeetu baax baax yi ku bëgg lu baax ñëwal Six Avenue waa pare na toog na ba teg la ay tànkam di déglu turam boo ñëwee mu sañse la habillé la ba foo dem daaneel say morom. mooy ni ma leen ko waxee woon weddi gis bokku ci fa tubaarikàlla waajaa ngi ki nga xam ne bu sàjjee mu neex mooy solo ndaanaani nettali ci làmmiñu borom la dàqee ziar naa la. ziar nañ la. waaw fa gis nañ ni foo tourné. gars yi dañ naan Sixth Avenue Sixth Avenue sañsakat yi koo ci laaj dàll bi rafet na mun a la demal Sixth Avenue yére tubay macha allah ana lan mooy sa secret ba nga sekk ak gars yëpp di leen solal nice. waaw mais amul secret gars yi ñoo bëgg lu baax rek gars yi ñoo bëgg lu baax rek te man dama yor lu baax moo tax xam naa ne moom moo tax ku bëgg lu baax moom dañ lay yebal Sixth Avenue rek. waaw te xam nga Sixth Avenue moom daanaka moom boo ko déggee maanaam mooy tudd nga yëpp. waaw parce que ci riisis gi la. waa képp ku doxantu Risis wala képp ku jege Risis wala boo bokk ku bokk ku bokk ci Médina gi maanaa yaa ngi ci biir Six Avenue moom bàyyiwul dara moom. te li ma gën a neex Six Avenue mooy diggu Médina xoolu Médina xoolu Médina ci boppam foofu foofu la Six Avenue ne. ki sa nga xam ne lu waral say sàjj say xeetu baax baax say tubay baax say dàll baax yow macha allah law la cat zéro waa waaw mais xam nga xam nga booy wax waxu Médina xam nga Médina. Euh, ay boy town lañ ah te yow buñ la newee boy temps rek xam nga doo laam-laamee leneen yow xam nga boy town moom day daal di bëgg lu baax ah bëgg boppam kon moo tax xam nga mooy waral Six Avenue quoi waaw ah, kon yaa bëgg a xam daal ga Six Avenue daal gaa ngi nii xam nga mën naa ñëpp ko bokk mooy Assane Gueye ñoom buur yi xam koo ci xalaat ku ne yaa ngi ci Six Avenue gis naa say xeetu sañse ay États-Unis lay jóge ay Angleterre ay France ay Italie waaw mais loolu yàgg ci liggéey bi rek te am tamit euh, am ay collaborateurs yoo xamante ne ñi ngi fële xama ñu def ñi dañ dañ fiy nekk ñu yónnee ñu xama loolu la quoi. waa fa moo tax ba tey maa ngi ci waa ji ba tey ñu ngi fan Six Avenue xale bi sàjj mu neex nee naa ko sey xeetu lakos man daf may daaneel te ku ne xam ne ci tàngaay lañ ne Lacoste dafa sañse fu la neex mën nga ko fa yóbbu dafa classe. waaw mais yëf yaa ngi ni ah yaa ngi ni xam nga ak laxoos yi neex ak teseet yu rafet daal moom kenn waxaale wu ko ci moom. xam nga non lii lii ay laxoos ay laxoos de marque la lii ay laxoos de marque la lii marque polo la. marque polo la. marque polo am na yoo xamante ne lii ay Eden Park la. déggal loolu Eden Park ngi noonu waa ji sañ sa kat la ku ne xam na ni daanaan la dafa xam lu baax mais prix yi bëggoon naa xam prix yi li ñuy jar ndax xam nañ ne ay qualité nga yor. waaw mais xam nga prix yi moom daanaka moom ñun bokkuñu ak euh, waa Auchan wala supermarché mhm. ñun prix yi fixé wuñ ko dañuy waxaal ak client xam nga ba mu dal sa xel xam nga nga xam ne lii jaral na la ñu jaay la waaw ñun amuñu prix fixé quoi vraiment te na du prix yi nga xamante ne xam nga du prix lu du prix bu metti xam nga qualité la boo ñëwee xam nga dañ lay defaral normal rawatina nga bokk biir town bi biir Medina Gueye na macha allah kon ñoo ko déggandoo nee na lu waay am boo ñëwee ñu xool nu ñu lay defaree xéwal jox la nga sol bu dee yére nga bëgg bu dee dàll nga bëgg bu dee tubéy nga bëgg bu dee ensemble tamit nga bëgg wala blouson xeetu baax baax loo bëgg am na fi ci xeetu baax baax te qualité la am na hygiène dëgër na sell na wóor na te boo ñëwee macha allah li ma gën a neex ci moom. day waxtaan ak yow di la neexal te jox la ne la beneen yoon boo demee pour ku ko gis dina xam ne marque bu baax laa la jaay dina ñëwaat. waa ba tey kon nañ dem nga wan ñu dàll yi xeetu baax baaxu dàll yi man de bi ma fa dugg see dama daanu leer. dàll yaa ngi fi dàll yaa ngi fi xam nga bii nii boo imaginer boo jëlee Jordan bii nii xam nga lii Jordan coupé la. Jordan coupé la bii xam nga bu tàngee nii mun nga def sa sorte bu bien xam nga laal ko ci su ak été bi ñu nekk xeetu baax baax. lii Jordan coupé la quoi xam nga. Euh, xoolal ma xeetu jordan ay jordan yu yii dafa bëri ay couleur xam am na ay couleur yu rafet yoo xamante ne dafa étayé te xoolal bëgg yi nii yii boo ko ci laalee xoolal lii lii Assane lii lii lii lii yow dong yow dong xam nga def ko ci suuf ah mbaa nga laal ko élage bu ndaw mais xoolal ma xeetu bag yi dafa bëgg yu mel ni dafa bëgg yu mel nii xeetu baax-baax yi yii lay wër yii lay wër te xam naa ne moom dina fi jaar xam maa xam loolu bu baax waaw xoolal lii xoolal lii rek mais xoolal ma xeetu baax baax bi man bi ma dugg see sama bët bi daf ko xool rek rangooñ bi di wadd ndax jekk te li ci gën a neex lii qualité la quoi qualité la ak nga xamante ne xam nga du quantité quoi lii qualité la jaayul daray quantité ku ko xool xam ne ci qualité lay dox ci xeetu baax baax lay dox kenn du moom xeetu tuba yaa ngi nii tuba yu baax yaa ngi nii xoolal ma xeetu huile yu baax yi grand frère la bii jinu philippin la bii ay philippin la lii huilé la lii Assane lii xam nga ne yow lii booy temps rek moo ko mën a sol ah waaw parce que lii huilé la yow xam nga li ma lay wax bu baax yow sañsekat nga yow xam nga. te li ma gën a neex ci ay philippin yu baax xeetu baax baax boo ko bëggee ñëwal sixième sixième avenue waaye waajaa ngi waaye six avenue ci kaw tali bi la ne. di sàjj lu amul fen di fil filaale lu bari jom. ci xolu Medina la ne da ngeen ne ci xolu Medina la ne. ci diggu xol ba kay waaw ci risis ga la ne. moo waral succès avenue bi <laughs> amal jàmm Assane kontaan nañu torop kontaan nañu macha allah say bagage rafet na te ñu tamit luñ doon xamee fii te it ku ko xool xam ni xeetu baax-baax yi ci yow rek la am daw si leen yëf yaa ngi nii boo amee soirée boo amee ngénte boo amee lu mu mënti doon boo bëggee dem soirée boo bëggee baali loo bëgg a dem rek ñëwal Six Avenue waajaa ngi nii gorsaa ngi nii analooy looy waa xanaa kay di bëccëg rek. waaw di kontaan bu baax ci euh, ci Medina TV parce que Medina TV nekk na loo xamante ne comme li waa ji nu ko waxee la rek ñëpp ko moom Medina gi ñëpp ko bokk waaw yéen daal euh, yàlla yàlla lafal cat waaw fu ñuy dégg télé yëpp ñu dégg leen fo ñoom France 24 yeeg waaw ñoom Canal Plus yëpp xam nga fu ñu munti dégg télé bu télé télé fu mu munti def fu mu munti yegg moom yàlla na ko yàlla yóbbu vraiment xam nga di leen encouragé tamit xam nga di leen félicité tamit bu parce que lii mooy wane ne xam nga euh, ndaw Médina yi xam nga defuñu croiser les bras dong waaw dañuy nangoo liggéey xam nga nangoo ñafe xam nga lii daal vraiment xam nga kontaan nañ ci bu baax a baax xam nga 77 la 148 38 ak 88 148 la 77 148 38 88. kon ñoo ko déggandoo ku bëgg lu baax woo ko ci numéro baa ngi ci suuf boo ko ci woowee am na ay livreur yoo xam ne tamit foo munti nekk ci ci Sénégal ci Dakar boo ko woowee livreur yi daw si vite fait meles laa leen tuddee livreur mi boo leen woowee sa tànk la ñu naan jamet taxaw kenn du moom. mais kontaan nañ baax merci beaucoup. ñoo gën a kontaan si yow sa Dieu vous bénisse sa Dieu vous protège borom Six Avenue one love Six Avenue xale bi nga xam ni macha allah zéro faute je suis vraiment content dans cette vous quelle belle initiative ce Dieu vous bénisse.